di ñaan suñu borom yàggal ko fii ba lépp lu mu yéene liggéeyal maam ji sell ja yàlla may ko ci lu kawe njottam ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen jaajëfal ci topp ngeen di topp seen site bi di Assalaamy TV ñoo ngi ci suñu troisième numéro di sama waax sama waax nag soo ko déggee jàppal ne ñëpp ngi ci biir sama waax nag tey ñu ngi doxantu fii ba si gaax bu ndaw ci benn xale bu góor boo xamante ni day daan doole di liggéey yëngu ci wàllu mécanicien dañ koy bàyyi rek mu nuyoog asbal. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu nuyu rek sunu mbokki taalibe yëpp di am mbégte kontaan te di wax ni euh, lii moom mbégte la ñuy siyaaru baax ñëpp di wax ni euh, bàyyiwuñ kenn daal te suñuy kàddu moom kàddu mbégte la yoo xam ne maanaam buñ koy wax lépp dañ ciy bàyyiwaale xel ñi xam ne maanaam tamit ñu ñuy bàyyi xel di seetaan aussi tamit di dégg suñuy kàddu mu nekk kàddu yoo xam ne kàddu taalibe la ak kàddu jullit ak euh, diggante jullit ak moroomam daal ndaxte lu rafet moom. Mm-hmm. kenn du ko yàq lu rafet kenn du ko yàq waaw mm-hmm. rafet kenn du ko yàq ñu ngi ñuy baax di ziar baax soxna Fatou Fall dem kontaan ak mbégte waaw jërëjëf sëriñ Ahmadou Mboub ci kàddu yi am solo yi nga xam ne moom nga tijjee di nuyoo tamit ñu ñaan la suñu xalifa bi nga xam ne moo fi toog toogaay sëriñ Touba di ñaan suñu borom yàggal ko fii ba lépp naar bu mu yëkkati rek yàlla na ko ci yàlla may lu ko njot sëriñ Ahmadou suñu kàddu gu njëkk mooy ñu bëggoon a xam sëriñ Ahmadou ban an la dugg si métier bi waaw moo man maa ngi dugg année bu ma jëmul maa ngi dugg année 2002 laa dugg ci métier mi mhm. waaw mais nag gis sama bopp bu baax nag mhm. ndaxte kenn ku ne li nga li nga yaakaar boo ci amee teraanga war nga cee mën a am mbégte daal naa loolu daal moom laa gis sama sama métier te dugg 2002 ba yàlla ba ënd ñu ba ci 2021 mhm. waaw xam naan daal moom lañ ci moom lañ ci moom lañ ci dugg ndax biñ ci duggee ba tey wax dëgg yàlla rëcc woon ñu ci duggee daal ndax ñi ngi ciy faj suñuy soxla di ci defal suñuy waajur ak ñi nga xam ne mooy suñu mbokk ñi nga xam dañ leen dañ ñoo yaakaar ñu yaakaar leen tamit ñu leen ciy defal mm-hmm. ndax tamit kenn ku ne amadul sa tranga te wax dëgg yàlla macha allah ndax gën dañu góor moom bu sonnut maanaam euh, bu sonnut daal li mu bëgg dëgg ci àdduna du ko mën a am mm-hmm. ndax moom dañ naan mor bi mën naa ñàkk euh, mën naa ñàkk xaalis mën naa ñàkk euh, wërsëg mais xol bu sëriñ Tuubaa nekk moom mm-hmm. yaakaar naa war a mën a ñàkk dara ba ci Serigne Touba bi ñu ciy wax ne xuloo bu jumla tudde sina aflamoon li tawa jëx war bi musulmoon kon yaakaar naa xol bu Serigne Touba nekk waru mën a ñàkk dara daal waaw jërëjëf Serigne Ahmad ni mu ko waxee xol bu Serigne Touba sax dàkk wurtu mën a ñàkk dara rawatina am murit rawatina ñu yeewoo ci dëkk bu seel bi di Touba Serigne Ahmad dañuy daal di dikkaat rek suñu deuxième kàddu moo di Serigne ma dañuy dégg ñu bëri ñu naan comme sama classe gi su ma neexee ma ne xaalisu alxuraan lañ ma ngéntee yow sëñ Axma li nga xamante ni moo la dugal ci métier bi ndono la wala da nga da nga ko daf la neex rek nga dugg si. waaw soxna Faly ñu ngi lay tontu la mën a tontu ci loolu ndaxte euh, li dëgg la lu ñu neex la. danu danu xëy na sax am na lu jiitu ju métier bi jiitu ci ñun sax waaye ñu ñoo ko ñoo ko ñu ñoo ko ñu ñoo ko kéel suñu bopp daal. ñu ñoo ko tàmm suñu bopp tamit aussi ko suñu bopp. xëy na bi ñu ci dugg am ay jafe-jafe ak euh, problème mu wàllu. mais lii moo ñu neex la dañu cee bàyyi daal bañ cee bàyyi ndax xam na ñun ci moom lañ bëgg daal kon loolu dañ ci sant suñu waajur baax di ñaanal suñu waajur rek suñu boroom gën koo yërëm mhm. waaye fa suuf ci kawam bu baax a baax ndaxte nit ki di mu bëgg moom surtout na sa doom mhm. te waajur xamul amul lu doomam te lu neex doom lay war loolu moo ñu ci dugal mhm. waaw sa ñax ma ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu gi noonu nga ko waxee noonu lañuy ñuy ñaanale suñu waajuru góor woowu di sañ Moustapha Mbuub di ñaana suñu borom yokk ay leeram taaf ñi si barkeem di ñaan ki nga xam ne mooy sa waajuru jugan bi soxna Ndey Seen yàlla yàggal ko fi ba lépp lu ngeen yéenee koo liggéey rek ngeen liggéeyal ko ko waa sëñ Axma dañ ne liggéey mécanicien métti na méttiwul ndax des fois di nga jànkonteel lu neex des fois di nga jànkonteel lu naqari lan nga xamante ni moom nga ci mës a jànkonteel mu neex la lool ba tax nga sawar cee gën cee dugg ba ci xuus te dootoo areel benn yoon. waaw loolu tamit dan la ci mën a tontu ndaxte liggéeyu euh, mécanicien moto moom mm-hmm. ku ni yomb na wala wala neex na rek yaa ngi nax sa bopp mm-hmm. ndax ci tàngoor ngay liggéey aussi tàngoor ci ngay toog mm-hmm. yaa ngi dagg yaa ngi lakk te des fois suñu borom natoo la client boo xam ni yow yaa koy comprendre mais la mën ndaxte day jóge fële am lu ko naqar su dikkee nga defal ko lu ko neex li nga man mooy defal ko li mu bëgg daal. Mm. aussi tamit man sama place laa nekk te tamit yàlla dafa def ci man xol boo xam ne lii Sëñ Tuubaa naan wajaxal lisaani wal xal bi saag rek ma maa ngi man yàllaahu mm. man loolu ci laay dox. Mm. ndax bëgguma ko jóge ci nit di yàq deru nit. Mm-hmm. dama bëgg soo dikkee li ngeen naqari nga nga nga def ko ñu defal la ko nga dem ndax ñun comme danoo woote ni makaarimul axlaaq lañu woote ñun suñu place bi fi lañ ko wootee. Mm-hmm. ndax lu waaye bëgg soo dikkee rek dina yomb ci yow mm-hmm. te it comme que ñun ñëpp ñëw ñoo bokk lu ñu gëm bokk lu ñu bëgg waruñu mën a xañante daal man loolu laa jàpp ni sama liggéey it man loolu laa jàpp xëy na nag moom mécanicien moto moom métti na métti goo xam yaakaar naa nit ñi jàpp ne am na ñoo xam ne dawal moto moo nañ xam ne ngir ah. Ah, seen àdduna xaalis moo nañ ci dugal tamit boo bëggee xaalis il faut nga sonn boo bëggee xaalis dangay son sonn ndax mécanicien yombul te aussi tamit nekk na loo xam métier mu métti la métier mooy dagg di lakk moom yaakaar naa yombul <laughs> noonu la demee nag waaw ma Ahmadou waaw ci kàddu bi di nga gis ku la neex di nga gis la ci biti dafa seet clip yamuñu day mel ne sama classe des fois da ngay am lu la metti sa kër nga bàyyi la la metti sa kër nga ñëw ci ki nga xamante ni moom nga indi sa yëf pour mu la koy liggéeyal nga sipp ko naqar ca fekk na def la léegi yan saaru moto ngeen di faral di defar. waaw ñun moom moto yëpp la ñuy defar. Mhm. ndaxte soo gisee comme ni nga wax noonu des fois nga wàcc sa xol xaw a naqari. Mhm. man damaa jàpp ni euh, ñàkk gëm yàlla la. Mhm. ndaxte bu fekkente ni da gëm yàlla gëm sunu borom da ngay xëy di wuti te aussi boo ñëwee dangay ngay toog xaar yàlla rek. kon jàpp naa ne soo amee benn war ngaa mën a séntu suba ñett ëllëg nga séntu fukk waaye jàpp naa jullit ni mu génn ci këram noonu la war a noonu la war a dugaate ci këram. ndax su dul loolu lool da ngay léemu génn léemu dugg. man loolaa jàpp man man sama gëm yàlla ak sama gëm sama bopp man man foofu laa foofu laa toll. te foofu laa gis te ma yàlla samay xale tamit ma wàcc jàkkaarloog ñoom tamit du ma am lu ma leen jox aussi bu ma doon toog di muñ ba keroog ma koy am bu doon fukki dërëm dinaa dem jox samay xale ndax dañuy tout tànk ku ko teral yàlla teral la mm-hmm. su dee woon loolu sëriñ Saliou du ni nan ma jox ndaw ma def la sëñ la sëñ Tuubaa defoon ci mag ña mm-hmm. ndax kon loolu tamit dafi nekk loo xam ni il loo que ñu dugal ci cadre gëm yàlla mm-hmm. man sama gëm-gëm foofu la toll daal foofu la toll waaw Serigne Axma may siyaar sama sang boobu di Serigne Saalihu Mbacke mi nga tudd léegi nga xamante ni soo ubbee sama xol bi mën naa ne Serigne Saalihu rek nga ci fekk dama li mu waxoon ne nañ ma jox ndaw ñi ma jëf leen ci li mag ñi sëñ Touba defoon ci mag ñi wane nga ko nee nga sa njaboot rek moo la ñor sa waa kër rek moo la ñor lépp looy liggéey di dangte dangte ci naaj bi rek sa njaboot rek moo la tax di daan doole waa Serigne Axma ñu gis ne ak jamono ji nga xam ne moom lañ toll des fois nit dina ñëw ni ko nit ñi di waxee sàcc moto ñëw di la ko defal wala mu ñëw di la ko jaay na la piyeeseel ma ko est-ce que loolu tamit mos nga ci am problème. waaw loolu dañ koy sant yàlla bu baax ndaxte sunu xel ak sunu dal ak sunu teer moo ñu ko may. Mhm. ndaxte tamit li nga wax rek nit ki su doyloo. Mhm. du def lu koy dugalee ëllëg. Mhm. tamit encore loolu moom yàlla def na wax dëgg yàlla am nañ ci am nañ ci ak cant mosu ñoo dal. ndaxte nit fu mu jógee rek li ñuy njëkk def mooy jàngat ci moom ba xam kii ban genre la ak nan lay doxee. yàlla def nañ ñu ne yàlla boolul ñëpp wax dëgg yàlla ay nit yu baax lan ay nit yoo xam ne ñu ngi fi war a nekk te seen place la leen di fekk ñun am na ñoo xam ne da xamuñu bi ma nekk ci naka wóolugul ma wóolu aussi man it doyloo doyloo gu ma leen doyloo damay jëli moto damay ñëw defar delloo loolu laa seq ñi xam ñoo laa defar moto waaye kan kanta euh, nit di jël moto jàmbur ñëw fi andi problème moo amagut ndaxte xale yi ma yor sax euh, dama leen di wax ni bu ma génnee bu ma génnul yëpp lu yéen moo xam ndax weer ndax tamit loolu laa bëgg ndax tamit doxuma loo xam ci loo xam ni tamit damay nëbb gis métier bi du métier nëbb ndaxte métier bi du métier nëbb mooy da ngay defaral nit ki ñëw xolam sedd mu boole laa keneen mhm. loolu moo waral ñis ñu ci sant yàlla bu baax daal moo mhm. ñu ci sant bu baax comme ni nga ko waxee rek lu waay di def nay doon lu yàlla tax ndax lu yàlla taxul lu nekk rek barke bu di ca nekk ndaxte olof ñaay dina looy jël na doon lu la lew dërëm bi nga xamante ni moom ngay dugal sa biir noonu la xamante ni yow yaa ko ñàkk jariñ ko mu leen na lii boo ko lekkee dina la jëmee ëllëg fenn sëñ Ahmadou Mboup ginaaw ci kàddu yi rek euh, naka ngay jàngoteeg sa ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal métier bi muy apprenti yi waaw xanaa sant yàlla ak euh, ak muñ rek man loolu laa loolu laa jàppee sama bopp ndaxte yàlla def na ci man xol boo xam ne man damaa lewet mm-hmm. te loolu la noonu lan ma tarbiyee woo tamit sa man dama du doomi gone ndaxte mag day toog yow wax la loo xam ne si ëllëg man cee gis loo xam ne bu amee mu ne waxoon naa la ko man jàpp naa ni nit ki nga bokkali lekk sax sa sukkin bu rafetut bu la bu la xoolee daa siis man ñëpp laa yaatal sama place place borom Tuubaa laa ko def macha allah toftale ko wakaana xan alay naa nature moom leen ndax ci lañuy dox ndax ba sëriñ bi naan mag ñi wut yomb na da dañ cee tegal ne ala nabi Muhammad wal ali salli wa salli wa sa kon bu tegee tamit ni lil mun ndaxaa ab tub maay suru bi laa ni xayaati waxi dimi taq balaa mm-hmm. kon day sëñ ci xam ne ay ngëneemam taqal na ko taqoo na taqoo na ak lépp ndax taq balaa dafa dafa firne suñu ko xoolee ni euh, xalifaam ñëw na muy euh, al Cheikh Muntaxa di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ceeg mbaaxam ak ci xelam mu rafet aku dalam aku teyam kon danoo war a ñun di def jëfi bi mm-hmm. ndax ñun la ñuy wax rek lépp lu mën a taaxale Serigne Touba man ma baalam sama baay moo jur sama yaay moo jur mais suñu taxoon ñëw baal Sëriñ Tuubaa ba leen man foofu laa sama sama sama ambition ko foofu laa ko teg bu dëggalut bu euh, li mu nekk gëmu ko bu dee ngisal na leen ni Sëriñ Tuubaa xamu ko te man damaa bëgg Sëriñ Tuubaa te yàlla rek a tax mhm. te Sëriñ Tuubaa ko bëgg te yàlla te boo tegee Muhammad Rasulaay dina sëkk man loolu laa gis loolu laa laay doxit te xam naa ne fu yàlla defal na fu la joo xam ni lu mën a tàqale Sëriñ Tuubaa rek ma daal lay euh, tàqale sax bopp man loolu daal laa gis nag. jërëjëf sëriñ Ahmadou Mbow xam naa ne kàddu Pastef nga waxee kàddu bu dëggu moo di ku la nar a tàqaleeg sëriñ Touba nga bàyyi ko ndaxte sëñ Touba dafa sax si xol yi man damaa jàpp ne sëñ Touba amul noonu nit ñaa ngi koy utal noonu mais sëñ Touba amul noonu sëñ Touba ñëpp ko bëgg. sëñ Touba heure bu ñu nalee suul jëfam rek mu feeñal feneen kon kooku dañuy ñaan yàlla fayal ñu ko ndax lépp moom la moo tax tey bañ nekk ci dëkk bu sell bi dañ ne boo amee foo ne am na lu la metti soo dawee làqatu Touba da raw ndax Touba moom lu dugg raw la si nga xam xam liggéey bi Touba rek la yem wala day egg ba feneen yeneen i dëkk ñu doy woo pour nga defaral leen seen i moto. waaw jërëjëf soxna Fatou Fall liggéey bi moom yaatu na ndax yaakaar naa région yëpp ña nga fa ba ci dëkk-dëkk yi ndawaan ñi ngi fa mm-hmm. boo nag yàlla def na mécanicien yi yàlla defal na leen tawféer jox am loo xam ne ñu koy pratiquer ci biir mooy ñu ngi def ay euh, social ñu ngi def euh, ku xew la ñu ne danan danan danan danan fexe ba teew fa nga nekk duñ fa ñëwee ak loxoy kese nag wax dëgg yàlla macha allah. maaf ak jëwriñ sax Diouf waaw am na social boo xam lay def waaw am nañ ko waaw léegi ñi ñi ngi féete Mbàkke ñi ngi féete daaru mi nam ñi ngi feeti euh, gaaraf daaru mu mel jawrin amet wax dëgg yàlla ay gaa yu baax lan ndaxte tey danañ dugal débat yoo xam ci euh, biir groupe bi kenn ku nga ci gis sa bopp ndaxte xay naa bu ma jóomul ci corona bi am na ñun quarantaine ñoo xam ni gis nañ ci seen bopp incha ci mel ni euh, Muniru ak ñeneen ñoo xam ni xëy na yàlla dafa def bàyyi ma leen xel seen tur waaye ñi ngi ciy loo xam ni wax dëgg yàlla ba ci boo dee dama koy dama koy fàtte am na ci uh, yenn kii ñu defal mi uh, certificat yaakaar naa bu ma jëmal travail ñu ngi ko ci pratiquer kon loolu ak cant la kon ñu xam ne mécanicien ñu ngi dox ba ci amoon nañ seen daare bi nga xam ne sëriñ sëriñ sëriñ Sidi Muxtaar yàlla na ko yàlla xare àjjana te yërëm ko moo leen ko tudde woon mm-hmm. muy daara mu daayira nooru daara ni mécanicien moto noonu la seen daayira tudd njil di bàyyi moo duggee kii ji topp di uh, sëriñ Demba mm-hmm. ñu koy woowee bëgg lu baax tey bañ lu bon. Demba Sall waaw parce que tamit euh, métier mi nit ñi dañ koo gis nii ci bët rek mais ñi ci gis seen bopp bari na de mm-hmm. man de gis naa sama bopp ndaxte mën naa ni sax ci laa ci laa def lépp li ma war daal. ci laa takk soxna ci laa ngénte wax dëgg yàlla tamit li a defal koy def. yàlla bu baax di ko sant suñu jëwriñ ñi nga ñoo topp ci suñu ginnaaw. jërëjëf sëriñ ma mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen sit bi di Assalaamy TV ñoo ngi ci suñu émission sama waar ci suñu troisième numéro ñu ngi fii ci gaa bu ndaw tey ñu dalaloon Axma bu di liggéey ci mécanicien kon sëñ Axma dañ lay bàyyi nga wax sa kàddu gu mujj. waaw di santaat yàlla di gërëm samay ñaari waajur bu baax. Mhm. ak ñu nga xam ñoom laa bokkal ak ñi ma bokkal métier mi dina leen ñaanal yàlla bu baax suñu borom gën a dolli seen i mhm. gën leen a ak wér seen poos. Mhm. ndaxte euh, boo gisee ba sëriñ bi ñëwee suñu borom ne ko nan laa nan ngay def nan nan ngay def nga xam ne maanaam ñoo doon bañ ko am. suñ tubaab ni ko jégal naa ñëpp. macha allah suñu borom ni ko àllama nii maa kaana xabral xalq wa kaana bi karam wa talixi kon may naa la lépp. teg ca ni karama nii fii ma wax ni bala di mu karam min am sa faaxalati kon kooku ku ko ëpp yërmande ak ëpp ma yaakaar na amut. Mm-hmm. kon suñu xol ñun foofu lañ koy taaf rek ñu xool xolum suñu borom ba. Mm-hmm. ñu def ko idol mm-hmm. waaw di ñaanal nag sama sëriñ boo xam ne sëriñ Cheikh Fall Mboor dama ko bëggal sax bopp te yàlla tax te jëmi Cheikh Ibrahima nag laa ko bëggee ci kàddam gu rafet ak ay xelam mu rafet ak lu xam lu baax mm-hmm. di ko ñaanal bu baax a baax a baax mm-hmm. ak sëriñ Ahmad Muxtaar euh, moom sëriñ Sidi Muxtaar moom sëriñ Sidi Muxtaar waaw mooy turandoo sëriñ Ahmad Muxtaar kooku tamit yàlla moo de yàlla moo ñu boole ma nag moom damay ñaan li nga xam ne maam laay xalaat ci moom di ko def yàlla na ko suñu borom nangu bu baax di ku baax di ku bëgg lu baax nag mm-hmm. ma nga féete ca Kajoor féete fii guy mbind di doomi Serigne Sidi Mokhtar nag baax lool yaatu lool kooku dama koy ñaanal bu baax nag ñaan yàlla maanaam monde entier yëpp ñaanal ma ko bu wér a wér mu yàgg fii lépp li muy liggéeyal Serigne Touba nag mu gis ko ndax Cheikh Ibra moom moom moom lay mooy idolam ku bëgg Cheikh Ibra dama koy ñaanal bu baax nag suñu borom gën koo taw fexel baax a baax jafe-jafe bu moom su ma demee ci moom lijjanti ko mm-hmm. kon kooku yaakaar naa romb na day xarit ak i sëriñ. baax rek. waaw day toog di ma woo may toog di ko woo dem ci moom di di di ko ñaan ci baatu laa ilaaha laa suñu boroom yàggal ko fi wéré wéré barke maam Serap Fall yow di la sant di la gërëm ndax sa bëgg lu baax rek moo tax nga ñëw fii mm-hmm. waaye di nekk na loo xam yombut mm-hmm. te yaakaar naa yow it yàlla def na ñoo bokk fu ñu dëkk. muy rafet ba tey jii nii kon tey boo ma ñaanee dara pour ñu def ko dama ci am mbégte ak kontaante di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaw jërëjëf sëriñ Axma ñu ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal dina ñaanal tamit lépp nga xamante ni moom nga bëggee ci sa métier bi ñaan suñu borom may may la ci lu kawe sa njort ndaxte tamit métier yombul. te nekk góor dëgg yombut ndaxte da ngay gis liggéey yoo xamante ni la neex nga ko defalee danga naan naa am rek ñaq yow xooloo fi dërëm bi dugg xamoo xooloo fi nga koy jëlee yow li ngay xalaat rek mooy chaque jour daal na am lu ma yóbbu suñu kër mais yow danga danga da nga opté na da nga ñàkk liggéey lépp loo liggéey rek yóbbu ko sa kër daf laa lew may ñaan li nga bëgg si liggéey bi yàlla na ko yàlla Sëriñ Tuubaa defal la jaajafal ci li nga xamante ni moom nga ñu nangul tey ñu ñëw séq ya waxtaan ndaxte temps amul ndaxte yaa ngi ci liggéey bi dañ lay woo fii nga dem woo la fee nga jël temps bi yëpp jox ñu ko loolu tamit dañ la ciy sant di la ci gërëm di la ñaanal rek lépp loo bëgg ci liggéey bi ak xale yi nga xam ne ñoom nga ko ànd rek yàlla may ci kawe sa njort di ñaanal sëñ Sidi Moxtaar tamit ci ëttam bi ñu taxaw yàlla yokk ay leeram taaf ñu sa barkeem njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi yàlla teg ci loxo di ñaanal suñu xalifa bii di sëriñ Muntaxa Mbaay ki nga xam ne moo di borom mbég mi yàlla nag fi yàlla yàggal ba naal bu mu naal ci maamam rek yàlla may ci xam ne yéenay bàyyi xel seen site bi di Assalaamy TV ñoo ngi woon ci suñu émission sama waax di suñu troisième numéro ñu nekkoon fii ci gaar mu ndaw dalal ci suñu Axma Mbuub muy liggéey ci mécanicien damay ñaanal sama cameraman bi di sëriñ Fallou Sow di ñaanal sëñ Axma bu bakkaana xaqan moom bañ na ko moom la tuddee boppam di bëgg Serigne Touba lool nag ñuy ñaan wakkaana xàq ni yàlla nañ ci sax ba lépp loo ci bëgg rek yàlla ma di ñaanal suñu cameraman bi di Serigne Fallou Sow yàlla yàggal ko fii ba bi yàlla may ko ci lu kawe moom tamit ku oyof ku ñu yaatal lépp loo xamante ni yaakaar na ko ci liggéey bi rek yàlla na ko yàlla may kawe njortam seen émission ngeen àndoon ci ak soxna Fatou Fall fii seen seen Assalaamy TV kon ñu dox ak yéen beneen yoon incha allah